asalaamaaleykum asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo di seen Mbarou TV man Oustaz Naye feggo ak sama loxo càmmoñ ki nga xam ñëpp di sama xarit sama wala di nuyu ki nga xam ne sama xarit la sama booy la di biram biram biram biram Diouf itam xaritu xaritu xaritu doomeeraam bi nga xam ne mooy Tidiane maa ngi leen nuyu Tidiane nag Tidiane bi mu tuddoo ma jaaxal waaye sowaas la woo xam ne saay saay la wu doyo doyo waar Pape Alé maa ngi leen nuyu bu baax ak beneen booy bi nga xam ne xaritu jaafe naa la muy muy kii soirée Euh, Ibrahima Soare maa ngi leen nuy yow itam sama booy bu baax nga mais imbécile nga waaye ku baax nga sowaas nga day am ku baax nga aadama yow itam wakaam maa ngi lay nuyu waala aada dégg nga maa ngi lay xaj nga nag sowaas nga yow itam ma bàyyi sama xarit sama wëllëre mu nuyoo ñu continuer jërëjëf Nice maa ngi nuyu Mass Bordeaux ak jabar ja Ndeye Marie mm, maa di gërëm di leen bu baax di nuyu baax a baax a a baax di nuyu ma ci États-Unis suñu waaju baax waaw kooku kenn mu ñëw di nuyu dooméram ji Souleymane Sow bu baax a baax baax moom tamit bu baax la wax dëgg yàlla ku baax la Nice mm-hmm. mu nuyu waa nag sëñ Modou au passage moom itam mi nekk fii ci punti gii ñu ko nuyu bu baax di gërëm ku baax la vraiment duñu wàlla mu jub rakk ji vraiment duñu ay baax a baax a baax mm-hmm. wallaahi euh, mm-hmm. ah, ah, baax ku dal ku ah, ngi noonu di nuyu le roi de Thiant mm-hmm. ak Birane Ndiaye sama doom Pape Samb yow maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax yéen lay nuyu bu wér a wér nuyu wàlla sama jarbaat maman ak jëkkër ji Adama du baax wallaahi nekk fii ci mari si ñoom itam baax di xale yoo xamante ni daal seen loxo daal seen la seet Adama ah, maa ngi lay nuyu ak xaritam yëpp mm-hmm. du nuyu tamit suñu xarit yi du ñu wël rek ñëpp mm-hmm. waaye nag wax ju baax mm-hmm. ñun daa am lu ñuy waajal mooy li ñuy plateau bi ñu def le 31 décembre waaw waroon nañ ko nag wax ko nit ñi tamit ñu xam ko. waaw waaw loolu day am. 31 décembre la seen TV la jëm waaw seen TV la jëm 31 décembre kay seen TV ñoo fa ne ñun. waaw plateau la. waaw loolu moom gis plateau dëgg rek. waaw dama rek rek ak réalité. waaw ak ak kilifa yi am solo wallaay wallaay. TV ñu ngi foofu. ngeen gis beneen affaire ngeen gis beneen. waaw mm-hmm. ci beneen facette mbir. Mm-hmm. yu doy waar doy waar loolu tey lay am bu soobee yàlla képp nga xamante nii tamit bëgg nga ñu sponsor yi tam ñu ngi lay xaar ndax nag émission lañ bu am solo boo xamee dañ ko bëgg a def bëgg ñëpp di ñu gunge ñuy nekk bitim réew ak képp bàyyiwuñu kenn ñëpp ñu ngi leen ciy woo waaw vraiment di bi émission boo xam ne daal ñu ngi koy préparé dëgg la waaw léegi nag waaju baax ñu préparé waaw jërëjëf nice hmm. man damay bëgg a jom fii ci Sénégal Sénégalais yi damaa defe ne dañoo xeeb li yàllay rey hmm. léegi dañuy jàppale yàlla ci rey ji yàlla daanaa danaan jël nit tëral ko mu feebar mu mu mu mu mu mu dee hmm. léeg-léeg mu jël nit jékki-jékki daal koy rey rey bu sedd mu dee. Mhm. mais sénégalais yi léegi damaa defe ne léegi ñun ay ay ay ginaar lañ wala ay xarit tabaski lañ wala ay ay ay naku gàmmu lañ. ñun daal da ngay wax nit mu ne la damay rey sa ndey de. balaa ngoon mu reyal. waay dalay waaye day xaar ngoona ah. nit day génn pistolet na eh, damay nga naan da ngaa dof mu ne la ko réel la nga naan de te seetlu naa nag ñi nga xam ne ñooy ñooy reyaate. Mhm. mënuñu lijjanti cent franc ci réew mi. wallaay mënuñ toujours ñi amal njariñ réew mi rek la ñuy rey. wallaay wallaay wallaay yàlla ko taxawal. ku mënta lijjanti dërëm. wallaay mooy rey yaay lijjanti yaay lijjanti rey borom ki lijjanti ay million. wallaay xoolal soxna si ñu rey. ku amoon njariñ ci réew mi doomu réew mi amal njariñ réew mi. wallaay gone gu ndaw gu tekkul sarap ndeyam. waaw ñoo ne ko teqat la droit ki dee nag waaw ki dee moom xanaa amatu la droit boo nit nga xool boo rey nañu rey na de. dañ dañ lay duñ la rey. même sa yaay buñ ko reyoon tey man mii mhm. tey mu reyoon sa yaay. Mhm. man boo ma reyee dañ lay tëjaw. bu sax sonn man loolu jaaxal na ma nag. Ah, la droit de l'homme la droit ki dee amul. waaw moom moom amul benn droit moom. ki dee daal naxasal ngeen ko ñàkkal ko fayda. Oh. foog ngeen ne kii ñu jàpp fekk biir këram. waaw rindi ko jam jam doom ji. na xam nga ne doomeeraam di def loolu kooku. ñaaw na bon na soxor noonu ñaaw na. xam nga Sénégal war nañoo jël sartu nag léegi teg ko nag. loolu maa koy conseil gouvernement bi moom boo ko jëfee xayru mbóor nga ñu xaay maa koy conseil ku ah. rayati ne jox leen ñu ko ñu yóbbu ndem estat ah. woote ñu mel ni téere poubelle ñu tiim sa ndey yow mi reye ci ngay xamee rey ni mitee ñuy jamat sa ndey ndànk ah. ndànk duñ la reyegum dañuy jam sa ndey ci baaraamu tànk jëm kaw dañuy non gis nga waa ji baax yërmande gi lañ war a ba fii ci réew mi amul ku rey ñu ñu fees na ci na ci wut wicc wicc wicc poobar ak oh. nit ñi nit ñi yenn ñi man xawma la te fan yi nag rey dafa taqar naa yow tubaab bi dañoo ñemete ñëw Sénégal benn écrasé ñu mëna Sénégal ndax ndax rey gu métti gi waaw rey gi moom lan la ban phénomène la bëgg ah man jaaxal na ma ban phénomène dugg ci réew mi ba tax nit ñi rey nit ñi nii ni rey daal sans sans zem sans dara bu ba da nga nit mu ñu oh ndogal la dañ doon bëri rek mais léegi da ngay tas ak benn waay mu génn paak ne la fiisee yow ba deux heures ma rey sa ndey une heure mu rey la da ngay du xaar du xaar sa waxtu wax midi mu sa taxaw nañ ñi man nice ba jaaxal am yi reet tekk wu ñu dara ci réew mi amaluñu réew mi njëriñ amaluñu seen baay sax njëriñ amal lañu seen famille njariñ rey nday koo xamante ne nii njariñu réew mi la waaw loola waaw ñu tëj la deux ans nga génn boo génnee yoraat sa paaka ñu ne eh moo ci leen ko day reen diw de moo reen moo reen Pa moo reen de wallaahi eh moo dëggoon day jaafana de moo di leen ko de ah ñit ñi ah, ñu di wax moytu nii la waaw loolu ndam la ku war a rey daf leen ne màkk man dama man damaa naw yaaya jàmm wallaahi jar naa naw nag man sem yaaya jàmm am na fulla yaay jàmmi kon waaw. boo fa rey mu rey sa ndey. waay waay waaw yaay jàmm rey sa ndey. bëccëg ndar kam la ñuy rey sa ndey. du ñu xaar sax muy guddi. non non ñu xaar muy lëndam dañuy rey sa ndey huit fee. du yàgg sax. waaw Sénégal nag loolu dañ ko war a jël nag. ah c'est trop ku rey ñu rey sa ndey. dafa yomb waay nekk di tendee falak naan ay nii. te ren de la ñuy dem diine la ku rey reyal. waaw ah, ah, moo ne la ku rey reyal. ku sàcc doxaanal ndey loxo bi man xaw ma lu ngeen di xaar ku fi ni nekk di rey nit ñi ci ci rey wu tegu wu tegu. fenn vraiment dafa ñaaw du ngeen rey seen ndey. wala maire bi rek léegi daal naax saa yi noonu. moom ñàkk na njabootam ñàkk na. waaw rendi ko jabate doomam. waaw waaw mais mais kii tamit ñaan na. non kii soxor na waay. kii li ngeen ko waroon def mooy tendre président ndeyam. tendre président dafa sedd naay tendre président dafa sedd. maanaam dinañ ko rey mais maanaam ñëpp réew mi ku ñëw rek ñuus dem. àdduna bépp ku ñëw ñuus dem da ngay dee de. non lii yomb na trop quoi. yomb na lool lool léeg-léeg sax ay toxal ma toxalu ma la rek. waaw ñu rendi ah, Sénégal léegi waaye nañ jam de boy bi frère bëgg loolu la demee de tuxal ma rek ci affaire cigarette yu ndaw mu morom ma ray ko. non tuxal ma tuxaluma la mu jël paaka na ko dabb rey ko. mu jeex mu jeex. sa dama ni japp ko tëj ko ci. kaw 200 nga gën deux way day gën doxi soxlaam. ka dé nak mom ñak na ka dé du ñak na. la loolu droit de l'homme. droit de ki dé nak waaw ki dé waaw loolu droit droit droit de ki dé nak war ngeen ko jënd man sama ko man la wol xawma ma. man légui dama am protège fi ci bat

waaw mais kii joxe autorisation di la jox kayitu pistolet. fenal war nañoo xool sax boobu ndax yow da ngay daanu crise wala da ngaa dof wala da ngaa gaaw a tàng saxeen. voilà ñu soog laa utal ay kayit. mais ku ñëw rek indi casier judiciaire rek. ñu jox la pistolet waaw. nga nga dem sa yoon. Eh, loolu yomb na de yomb na de da ngay mel ni da ngay naan fay ma sama 100 francs yi booy xaaral ci kanam tuuti waaye ban xaaral ci kanam. mu sedd eh soxna see booy dama laa nob de. waaw ah, eh, man dama am jëkkër ah bon. Ah, waaw mu sedd guy ba kañ. Ah, xam loolu yomb waaw wees naa yomb. ñu suule waaw. laay laay ay waay yow diw da rey na diw waay laay waay yee eh, ay yow doomi diw jaaray doomi diw. jeex na mu jeex coow la fa lay yem képp. loola dañuy fi soas loola nag réew mi xaw ma kiy joxe autorisation armée waaye yow war ngaa xoolaat ñi ngay jox nit ba xam ay nit saytu nit ki nga koy jox. xool ko ndax ku gaaw a mer la laaj ay dëkkandoom fekk enquête dañ ko cee war a def. baax nekkul n'importe qui xam ngeen imbécile bee xalifa boo ko joxee alal ma. mooy rey nga ñu. daa tàng xol daa tàng xol damay rey mbaamu rey la huit fee. day daanu yësi. waaw ba pare waaw. waaw kuy daanu yësi bu jox pisol. waaw waaw ñëw day jël tiw.

seen réew day gën a dellu ginnaaw rek. ca xaj la jëm. moom ku fi nar a ñëw investir moom dem ca beneen feneen ndax xalaatuñu ku leen di rey waaw soo bëggee nag nañu baax ñu di fi ñëw ngeen ba rey ji ngeen nekk. Hmm. li ngeen tegu leen ko fenn mais lima ma la wax la war def stade la war yobbu sa ndey di rayet dila dogot dagata la dagata sa ndey ku dag jox su morom non ke kenn ku ne yobbu sa sandawal wer ndem ci kërëm di war diw bu ñu reyoon diw kaay yëpp tout ndawal ma ngi ni waaw waaw bu ko defee bu ko nit gisee xam nga bi kenn do rayet ICS bi xam nga ICS xam naa ICS am na fu ñuy defaree asib yooyu nga xam day sidi nit bo dugal nit da koy siddi waaw sidi sa ndey da ngay andi bari go asib jël waa dugal tanki mu sidi ko nga yëkkati waat bu suba waaw ah, bu suba bu suba nga ñor roofat ba ci boori biir waaw waaw ko ko ko ni nii waaw nii bu laalagum koy cokk yi da ngay laal pooj yi après nga laal kooy tuuti tuuti nag digg kooy bi ngay laal cëppit mu ne koy def lu ko koy ngay semp ndayem di semp ndànk di sapp di mais ray dafa metti torop na xol nga yor sa njabot do meram jog buñ ko defoon bu ñu tegoon kenn ci estat wut comme li nga xali ne ko asib tek waw capp nday tanki ba ci karam ñu tek nopp asib affaire gaay dem lek yi naan waxtani ba ci karam ñu wat sa nday ah. fek ngay souffrir yow ñu jàppaat sa nday ba ci sey wóom très bien ñu tek la ne ngay joyé ka sa yomb nit ñu dem né ñom naan seen i wargaak waxtaan kafre ñu pat sa nday ba la sa bop koy ne bu dee góor nga man dama defa ne ji moy def ni nit ñi wala sàngara la wala qu'est-ce qu'il y a wala rew am na xamant xam ñu duxuñu ñu dañoo réew doxaan sen ndey rek mais tamit réew. mais mais tamit parents yi am nañ ci part de responsabilité. am nañ ko ci éducation yi ndax naa si say doom. say doom di la jege si ñëw ci salle bi pour waxtaan ak yow. waaw ngelaw eh, dem ci biti. wala ñu demee ci biti kay ay woyu la ñuy tase. woyu yi nag jox leen 15 ñu 15. ñu commencé nekk beneen nit. waaw te parent bi yaa la waroon conseiller. dalal leen xam nga waji baax wax wala solo ah limay wax da nga dafa wax léegi lool lool lool lay wax de lañuy def waxi nit la lay wax de sax njaboot ñew tok hmm. sa nga tok ak ñom encadre leen di leen xol lañuy def wa da ngay def ay ci jël bi ci foy jël sama ne boy foy ji légui nak ah dañuy foy ji dañuy foy ji mbedd mi nak leen yar wala mbedd mi ku yar mom résultat bi li lay jur mi ngi ni li yé doon résultat moy nga doonub criminel kessé doonub sowas doonub xaj kessé lu neex ngay def kessé motax rew mi nit ñi kenn ku ci nekkuy kilifa war nga xol sax njaboot tek leen sa xol façon éducation bi nga leen di yaré ba nice ndax nak dafa étranger yi fi dugg bokku ñok ñom diine bokku ñok ñom yarin wallahi wallahi te ñoo ñu nañu yaq say doom wallahi wallahi xol leen seen doom yi encadrer leen téye leen leen teg leen seen wet nga leen diine alcorane waaw nga leen l'islam wallahi gis nga billahi xalé bu ci jégué peggu nday ra peggu bayam day yar yaray ne ci moom saxel day ne ci lay wallaay saxel wallahi waye mais nak nice ci ben affaire dafa am de mhm. gis nga Sénégal dëgg mhm. li nga wax fii léegi nii manam mhm résultat bi len dong hmm? na bu la leer na boo reyee jaafana mi ñu rey la. waaw doo rey jaafana damaa dof. da nga na yi su ma ko rey ñu rey bu fekkoon essay nañ ko ben jour. am ku rey nit ñu teqetal nit wane wane ko tele dañ leen ku rey rek ñu rey la sadik sadik bo jëme paaka bo ne ni da ngay mooy rey ñu rey sama lay da ngay wacc paaka bu da ngay delo bu baax way bu la leer na bo roy police nga jëm da nga na naa rey ah, naa rey rek na naa rey jaafana bu suma ñaari fan mo dem waaw dama ji fenn ma ne bés ma nekkoon président motax suñu parti bi yow eh, dañ ko wara taxawal dañ ko taxawal suñu parti mag yow dañ ko wara taxawal nek président waaw waaw ñun moom xam naa ne élection ñu woote da waaw waaw posé candidat comme ñëpp. képp ñëpp ndax fi mu loolu am na candidat libre ku mu neex posé. ku ñu bëgg dimbali pour ñu nekk président. pour teg fi loi boo xam ne ku rey ñu rey la. waaye jàppale ñu ci financement yi. dëgg dëgg 7 millions kese la. waaw 7 millions ñu opposé ñu opposé comme ñëpp. falu naa ñu doon président ma nekk ministre de l'intérieur. waaw mayo ah, mayo arpa bi. justice de la justice. waaw ku rey boo ñëwee waaw rey sa ñoy taxaw dara sax ñun. exécuter waaw. cëpp ñoy ray mu jeex tak da yor jass fe ma yor jaas mbaa yor fi pak ma pak ñu jamat sa ndey mbaa ñu def la ci asib. dafa ñaaw way nice rey la sulay ba nga dee. nice xol nga yor nga nek borom kër. nek ci kër gi di yaakaar la nekk benn nit. waaw ñepp yaay dundal wa kër waaw jariñ gox ba. waaw amal askan wi njariñ. ben benn doomu raam boo xam ne te yàmbaa rek moy liggéeyam. ñepp ñak askan wi ñak say njaboot ñak ñepp ñak ñu ne nak wa joy kenn du ko ray mom waaw te nga lor ñu bëri waaw bilaay bilaay Sénégal nañ seetaan la ñuy def waay war nañ ko seetaan seetaan leen li ngeen di def moom lu jar a taxaw wax ci la lii moom lu gouvernement war a gëstu taxaw na ma waaju baax dama lay rey bala nga naan rey rek rey naa sa ndey waaw bé ñu tëj bu dafa wax bala nga maa rey ma rey la ma waaw waaw yaakaar na kan waay yow waaye dama lay rey ma rey sa ndey taxaw ne ngay daw taxaw ne di laa taxawee Ah, dama la rey fee en ñun loi baa ngi noonu waaw loi bi daal ku ko teg ñu tegu man sama kuñ ko rey dama rey la waaw loolu la war a def léegi xam ne sax lu gouvernement war a def na léegi na gox bu nekk gar gox yi rek si ko xam ku fa rey rey leen ku fa rey rey leen ku fa rey nañ jàpp kooku rey ndeyam jaam jeex tàkk léegi day jàmmam sénégalais moo xam naa ne boo leen ku rey reyal jigéen askan ndax xam naa ne ku rey wala ma wala ma ci reyal jigéen moo njëkk a dee ci lislaam jigéen la yàlla gën a fonk jigéen a ëpp njariñ ci askanu sénégal mooy jur wàllu jur ministre jur mais nga tëral jigéen tiim ko mu lay xool nga koy xool nga naa comme eh, yaa njaay mu naa la ay waay kaka la nga ne ko man la man la man la jaafana dama lay rey nii dama ay jaafana bu ma rey dama yor njaboot nga ne ko teqeet taqale booba ah, teg yaa ah, Fatou Ndiaye ne njabootu Fatou Ndiaye jooy jaafana di bonda jaar tali bi yow ki ñu reyoon kër Mbaye yële passé na yaa nga fàtt ka doom ji yónnee woon pour mu ngénteel ko doomam. ñu fekk ci biir ñu fekk ci kër fekk ko ca saal ba. salon ba lañ ko rendee waaw rend ko ci biir salon. teg noonu waaw maire boobu ndaw soosu. maire ba ñàkk. bilaa maire ba ñàkk ay njabootam ñàkk njabootam ñàkk. mujjul fenn waaw ba tey ki ko rey kenn ah, xamul. ba tey kooku kenn xamul mu naax saa diw waaw Sénégal jël nañ lu bon de fii daal ku fi dundal nit ñu dundal la waaw ku fi rey nit ñu rey sa ndey waaw ku jox nit cër ñu jox la cër Sénégal nay doxe noonu gouvernement bi moom daa war a lii ma. lan lay ñàkk a lan lay ragal. waaw xaw gouvernement bi ñu ngi bëgg ragal nag ñoom tapet lañ waaye tapet lañ nag. xaw lu ñuy ragal laa xamul rek. man ah, ban buqatan la ci ñun rek laa xamul man ban buqat rek. Sénégal war a ragal mu jot yem nag jum réew mu jug yem ñu réew mu jug yeb ñu xam nga réew yi suñu frontière dañ ñoo yeba yeb ba demee wuñu dara la ci gambi loolu yaay gambi lu yàlla ñu wax yaay gambi lu ay buxat la ñoo dañoo tapé nak ay ragal lañ wax na deug nak wax na dëgg ba ci biir ay ragal lañ nek deug de ay buxat lañ de eh. ay buxat lañ Sénégal dafa doy war quoi vraiment ñu ngi non dal mën na ngeen japp lañu bu baax ta xamna réew mi mom lañ am suñu jigen jigéen lañ am wallahi ku ñu jàppale japp ku am njariñ ci réew mi mm-hmm. nañ ko protéger ku amul njariñ nañ ko bàyyi fa la mu dem mais mëno ñak njariñ di rek am jëm mënul war ne lool warul war lool sa boy warul nak lool dafa warul mëno ñak ñor amuloo réew ben ndariñ njariñ seen kër njariñ amuloo citoyen njariñ amuloo yalla mi la sak ndariñ fekk nit kuy dimbali nit ñi ak dimbali njabotam japp na njabotam nga fekk ko fa rindi ko def nga lu bon yow mi deug deug def nga lo xamé xom lu ko def lo way def ngay fi sowaas def ngay fi xaj dara da ko jar ci aduna def nga lu bon bon dara da ko jar dara da ko jar billahi man baalu len yeen ñi rayé baalu len bu len ko ñepp balé seen fami balal ko mo do leen ko bal ba kenn da la koy bal kenn da la koy bal waaw bal dañ leen di baal ki leen di baal waaw yow eh, Sénégal xam lii di bëgg maslaa de da ngay ñaan nañu maslaa def xam nga seen maslaa de moo yàq Sénégal boo ko yàq non kii taalibe la non mm, jàpp leen ci non ay dëkkandoo lañu baayam ak sama baay nangam nangam mu jeex mu waaye naay sa doom. Hmm, bu rey sama doom yow da war a rey nday sama doom man. waaw loolay dëgg. waaw loolay doon doon ay waay nag. waaw sama doom ma ci lay demee. wallaay lay demee de. sa seet gi ñu ci a tax. noonu lay demee seet gee tax. waaw gan nag wa salaam yi ngeen déggee ko noonu. waaw te ngeen xamee nag am ay prothèse nag. Sénégalais yi damaa bëgg ngeen am ay prothèse. ay weñ fii seen baat ndax rend gee tax. waaw rend rend waate rek ay weñ dugal fii prothèse yu baax waaw seen bul yi. waaw na am prothèse. Mhm. waaw kuy tëdd tëddaale la ak moom. wallaahi ki ki ñu rendi feneen ki fekk mu tëdd ñu rendi ko. caa ba ba ba. ngeen taxamee ko nii. ñaaw na dëgg dëgg ngeen bàyyi lu ñaaw li ngeen def. ku rey ñu rey waaw. ku rey ñu tey bi. ku rey ñu xew tey am ci naqar lool ñuy mi. mett nañu waaw mett ñu tooñ ñoon nañ ko naqarlu. nañu ba xam ne naqarlu nañ ko. Ah. wasalaam li daaloon bi tey. jërëjëf ngeen déggoon ci yeneen jamono. jërëjëf yeneen kii wasalaam. jërëjëf jërëjëf waay ba baax